Déthié Fall bu Sonko doggee dugg kaso ko gis benn yoon pare na ca ba mu fa bëggee demaat encore Sonko daa lànk ne bëgg ko gis boobu fekk na gars yi indil ojo Sonko wax ji wax ji yegsi na ci Sonko mais léegi am na lu ko yombal ay ojo am na ojo amul mais laaj leen Déthié lan moo ko teree dem gisi Sonko mais laaj leen Déthié lan moo tax ñimewul dem gisi Sonko kilifa dafa xuloog moom kilifa nangam ak nangam mais bu ma kilifaa ngi Kaolack maa ngi Kaolack mais damay dem gisi ko noppiloo ñëpp léegi laaj leen dëcce lan moo tax <laughs> du dem gisi Sonko <laughs> xanaa loolu rek voilà dëcce ngi Dakar wala newul Dakar wala Australie la nekk dëcce ngi Dakar noonu Sonko ngi Dakar dëcce xam na fu Sonko dëkk xam ne ni Sonko am nay jabar du dem kër Sonko toog fa ci saal ba xaar ko ah mais lan moo tax léegi Sonko <laughs> du ko gis waaw kon kay lan moo tax diggante nañu melon melatuñ ko ñëpp gis nañ ko loolu kon kay loolu amna lu fi xew nga bëgg ko war nga bañ ko amna lu fi xew ñun buñ sañoon ñëpp jubo mais sincèrement dëcc ak Sonko tuñu té loolu Sénégal yëpp xam nañ ko gaay yi ren tamit comme man jot dëcc tontuwuma nag bugguma di tontu tamit parce que kenen la tontu man mom samay wax ki liste bi waxu ci liste yewi askanu yi man mako wax ci liste bi maa ko wax ci list bi tontuwul maa ko wax ni yow ak Sonko dangeen ngeen a jàppante am na li nga def Sonko xëy taf la musu leen xuloo nii am na li nga def Sonko yëg na ko xëy na taf la ñaar yooyu yëpp amul bu mu ci dindi waxul ni maag Sonko ay doomu nday lañ ñi ngi déggante waxul maag Sonko ñi ngi gisante mi ñeneen lay wax ñi ngi gisante mooy ba lay waxul Sonko waxul ci liste ba tamit donc ñaar yooyu man bu doon ci ñaar yooyu la ma tont dëgg la mais tontuwuma ci benn yoon ok li ma wax ni kay ñëpp xam nañ ni moo fi ne moo am moo existé kenn ku ko doon gisal souvent mais yéen a ngi gis Sonko ak euh, ex maire de Bambey ah Sonko du yéen a ngay gis ex maire de Bambey wala gisu leen ko ex maire de Bambey est-ce que xuloo ne mais ñoom ñoo newoon depuis Yewwi Askan Wi ñu ngi ànd ba léegi. gis ngeen Sonko ak per Habib Sy ñoo newoon yeewi askan wi ñi ngi ànd ba léegi mais gisul leen Sonko ak booy pur bi <laughs> mooy mooy gisutu leen Sonko ak booy pur bi leen Sonko ak Déthié ça montre que fii demeetul noonu mais Aïda Mbodj ba léegi mi ànd ak moom am na ñeneen ak ñeneen ñi newoon yeewi askan ñi ngi ànd ak Sonko mais ñaar ngi ànd duñu kon kay am na lu fi ne ànd duñu gisantee tuñu nekkatuñu ñu waa vous du leen tudd ñoom sax duñ Ne ci waa may mais nekkatuñu dem nañ sax ñom ba def sen coalition moy woné ni ñom dit dañoo paré pour ak projet bi bu dafa def comme lu Mame def ñu ne malgré lepp dafa bëgg japp ci projet bi bu fekkoon Déthié dafa dafa def li Boubacar Camara def ñu ne ah Déthié malgré coow li lépp froid bi am ci diggante moom ak kii mais bugg na jàpp ci projet bi mais Déthié dem ànd ak ay noonu projet bi dafa gën a aggraver affaire bi Déthié daa ànd ak noonu projet bi ñëpp xam nañ ne Khalifa Sall noonu projet bi la ñëpp xam nañ ni Khalifa Sall day xeex projet bi dafa dem bay xeex projet bi ñëpp xam nañ ni Barthélemy dafa dem bay xeex projet bi ñëpp xam nañ ni euh,

ñun ci rappeurs ñun la fekk baax ñun dañoo dëggu dañuy ànd xuloo clashante ñëpp Sénégal yëpp xam ne ñaar ñi ñi ngi reyante bu ñu jubooyee ñëpp xam ne ñaar ñi juboo nañ ma amee froid ak sama gars yi xeex bu tar moo am man ak ñoom mais bu ñu jubooyee Sénégal yëpp xam ne man ak kilifa ak caat léegi gars yi lañ kilifa léegi ak ak Gaston ay gars yi lañ sam ak euh, euh, Iba ay gars lañ léegi ñu ñun rappeurs yi dañoo dëggu mais politiciens yi ñoom ñooy matt di ëf comme jànnaxu bajo dañuy xuloo xam nga rayante jaar ci suuf di nëbbante ku génn du wax wax dëgg di raay raay mbelle teg dil ubbi bunt bi tëj fenêtre ba bu bu tàngee ma jaaree fii politicien comme dëmm Sénégal politicien comme dëmm man nawloo ma dara politicien Sénégal ils sont pas véridiques quoi ils sont pas véridiques amul dëgg ci ñoom quoi dañoo naa du duñu wax dëgg mun a fen amuñu principe da ngay gis kenn ni man du ma laal fii mukk fii non du ma transhumé nga gis leen fa suba nga fekk leen yow transhumé yow ñu ne dañoo faux quoi dañoo faux dañoo faux te dañoo foog ni saa ñu génnee dañuy nax sénégalais yi te xamuñu ni sénégalais yi leen gën a muus mais dëcc li mu def nii ban njëriñ la am di tontu keneen sénégalais yi ñëw ne la liste bi list liste bi li ngeen def sabotage bi ngeen def ñoo jox leen ci ay réponse ñu ne la yow ak Sonko dafa dafa am froid seen diggante ni mu meloon melatu ko xoolal ni muy def tontuwu ci ma ngay tontu benn waay benn benn boo xam ne waa ji déjà anonyme la anonyme ah waa jooju noonu kii may nangam ma kii ma kii waxuñu loolu dañ ne la liste bii dañ ne la lii yow waa ji nan la demee dañ ne la lan moo tax nga dem ci opposant yee noon yi nga xam dañoo noonoo projet bi nga and ak waji di xex di xex di xex bam jël présidence présidentielle légui soxna député nga dem taxaw na da ngay da ngay xëccoonte ak moom mais sa way lool lan la lool lan la quoi ci lan la bok ñom abib si ba légui ñi ngi ànd ak Sonko ñom ay dem boj ba légui ñi ngi ànd ak Sonko amna ñeneen yewi ba légui ñi ngi ànd ak Sonko bo and ak ñe kay il faut ngeen assumer bo and ak kele da nga naan maa ngi fii mais mais man musuma koo bañ man musuma koo bañ waxuñu la musoo koo bañ bu mais yéen doo leen sonn ba leen di déglu ñii est-ce que yéen seen xel seen cerveau yi yéen doo leen yéen a mu mun quoi man gars yi ma leen di déglu am envie toj télé bu may seetaan télé damay damay gis benn dëgëw du waaw donc kii man bañu ma ko dara ak waa bu mu ñëwee toog mu toog après ma ne ko boobu sax mun njaay bu mu ñëwee ne ma nañ waxtaan ma ne ko déedéet bu fekkee ne xeex kële la du ma toog ak sama noonu waaw damay am envie nanti ci sama télé ndax damay telebo télé ba du ma leen seetaan sama portable ndax damay xar portable te ma portable rek damay tàtt damay foog ni moom laay dóor portable ya yaak yàq man ni nuñ may def nuñ may merlooy ba du ma seetaan bugaan du ma seetaan dëcce du ma du parce que dinañ ma sama télé wala ñu yàqloo sama sama sama portable mais c'est inadmissible ay nit yoo xam ne duñu duñu wax waxu nit wax waxu nit ay waxi dof kese kese kese la ñuy wax di wiiri wiiri ni ñaar ni tàccu ñu taxaw dangay xool xam ni conférence bi amul woon njëriñ conférence bu buggaan démb c'est amul njëriñ waxi dof kese conférence bu dëccee mais lan ñi xanaa amuñu mbokk xanaa ay orphelin lañ non damay laaj ba xam est-ce que ñun ñii politiciens yi ñu yor est-ce que du ñuy orphelin tamit parce que day gars il faut ñu xool parce que tamit psychologiquement nit ki am na nu muy comporté woo da ngay xool lu nekk ci ginnaawam man dama jàpp ni ay orphelin lañ parce que nit mënu am papa sa papa di dund sa yaay nga am jabar bu nite nga ami doom ñu def la te duñ la conseil de bàyyi la nii nga nga foog ni man pour man ay orphelin lañ quoi man moo yaakaar ne orphelin de père et de mère lañ parce que yii munul nek benn une heure de temps waxo fi lu am solo waxo lu am njëriñ ay waxi dof man foko nani ne bu génnee day wax ci situation bi waaw sama gars yi on a vu hier Sonko mu alerter ci situation économique du pays c'est extraordinaire d'après mes recherches man sama bop damay damay valider limu wax parce que bo xolé PIB bi nangam yo moy borom xam-xam

ah cinq ans yi la mujjee wax mooy mooy dernier mandat mais am na sept ans sept ans yi lii moom moo nekk ci ci euh, malversation financier lii moo nekk ci dérive autoritaire lii moo ne loolu loolu la ñuy xale xale xalaatee man loolu laa leen xaar ci ñoom man conférence de presse xam ni xasante ŋàññante ay man nangam wax di sóob di nangam di di wut émotion dof yi nag ndeysaan dëcce ko baax la <laughs> man dama yow gis na dëcce ndeysaan dëcce ko baax la non gis nga nag wuju peccoor ko yaayam a ko yàq mais dëcce ko baax la nga nga leen du xool yi si émotion ba laal na leen maanaam mbaa dëcce newul di jooy rek mbaa dëcce jooyul fa man tamit mu génnee ne denc ku baax la mu ko may posone eh, denc ku baax la denc kenn yoru ko ak a bëri xam-xam ma ne eh, dof ya ñëw nañ ak dof ya émotion ba laal na de mbaa denc jooyut moo tax léegi léegi ku ci conférence day jooy man dama ko bëgg soo ko dama bëgg ci xol mais dañ maa xeex ndeysaan da jooy da bàyyi jooy li ku baax la denc na gars yi logo. la ko réew mi Remi. Remi. mi pour mu malam, réew mi réew mi da nga wala dafa dafa yàlla jiite ko yeewu gis gars yi xoolal dañuy suba naan non warkat la warkat la warkat la waaj conférence de presse rek lu def naa ko pour jéem ko gis mu bañ duguna hal buntu këram ñu bu baax ma ma jaar ci fenêtre bi fëgg na ko sonko sonko mu ne ma fooy festin ma ñëw na jabaram bàyyi ma ma gis ko xam naa yàlla moo doon doon seen ni i mi ñu ñëw hypocrite du ñu ñëw naan na fu ne ni demi taxara ba démissionné yàllaa ñëw ne démissionné naa woo prophète yi kaay leen kaay leen Mohamed sallallahu alayhi wasallam kaay démissionné premier ministre eh yéen yàlla Moussa kaay kaay kaay ñi ñi duñu nit ñi ay dëmm lañ bu yàlla doon <laughs> président lundi ba mardi ba lay démissionné da dana ñi man ñii est-ce que nit lañ sax ñii ñii ñii est-ce que maa leen créé <laughs> gars yi ni ñu ñi ñu effacé woo ak <laughs> ñoo yow léegi suba waa ji paccal benn bër ñu jooy <laughs> ne moo gën borom xam-xam la ku yeewu la <laughs> réew mi dañ ko ñaanal réew mi dañ ko war a ndëppal réew mi dañ ko war a ndëppal rab yi leen jàppa soxor ay rab yu soxora leen tee kenn xamul ko ku gëm ak ku gëmul <laughs> c'est moo tax saa ñu yewoo amul semaine bu ñett ñi dul génn semaine yële passé bugaan génn na yërim génn ma dambal génn semaine bii ma dambal génn na bugaan génn na yërim day génn <laughs> semaine bii di ñëw bugaan day génn ma dambal génn yërim génn <laughs> <laughs> nii lañ ko nar a jàppee nag nii da lañ ko nar a jàppee gis nga ku leen dawul ku leen bàyyiwul ku leen di seetaan léegi nga am AVC wala crise cardiaque continuer leen nii rek da ngeen da ngeen a teel a dee da ngeen bëgg a dee non toog leen semaine yële ci ginnaaw yërim ba matambal day génn yërim feelu ko buggaan ñëw ñu toj ko euh, semaine ba lu Sonko wax ñu suul <laughs> gars yi topp ja bàyyi waxu Sonko topp Madiambal loo Sonko loo buggaan Madiambal buggaan buggaan yërim Madiambal buggaan yërim Madiambal buggaan sekk buggaan buggaan sexe yërim Madiambal yërim sexe buggaan semaine bële ñu ñëwaat deuxième ba ñu ñëwaat semaine bii tamit yërim euh, buggaan génn na démb Euh, bërki démb euh, kii la ma dambal buggaan génn yërim ñetti prédateur sexuel yu jàpp gaa yi rek <laughs> comme comme ñoo ko jàpp gaa yi rek souvent ñoon ñu génn ñoom même télé yi nag même télé yi tak tak tak kii génn tak tak tak yërim génn na nii lañ ko jàppee yërim sexe ma dambal bug su yàmba mi mii <laughs> nañ ko ndëppal ah yërim day génn tey <laughs> waaw mi ngi noonu <laughs> yëgu ma woon sax loolu nag gis nga gis nga de kenn doon na bërki di day génnaat <laughs> noonu la de <laughs> Amadou moom day joxe rek Amadou Ba ñett ñooñu la yor lu Sonko wax au lieu ñoom ñu ko Amadou Sonko day génn indexé leen direct ñu yónni euh, les les prédateurs sexuels ñu génn lii lépp bu muy wax kan la wax Amadou Ba Moustapha Ba da leen a joxoñ indexé leen direct Amadou Ba Moustapha Ba mais xanaa Yérim moo tudd Moustapha Ba xanaa Madambal moo tudd Amadou Ba ah xanaa euh, Mamour Diallo moom mooy <laughs> Bougane kan la Bougane tudd Mamour Diallo kii ne Mamour Diallo kii ne Mame nga ne waaw moom lu mu wax sax gëmuma ko non lu muy suivre <laughs> ko mais sa waay kii waxu la kii kii waxu mais réew mi metti réew mi de waa ji day dund nga ne ko yow du la togg tontu ay coggam ak jàggam ñëw te naan na waaye lu nga wax du dëgg lu nga wax du dëgg te moom moom yow moom nga wax moom moom te mi ngi dund te yor gémmiñ kii ne la Abdoulaye Daouda Diallo kii ne Amadou Ba wax wa yi leer nañ ñi Moustapha Ba léegi Abdoulaye Daouda Diallo daal Amadou Ba moom mooy madambal mooy génn tontul ko Abdoulaye Daouda Diallo moom mooy euh, Bougane Moustapha Ba mooy Yérim Seck <laughs> ñoom ñoo war a tontu quoi ñoo war a tontu <laughs> réew mi du neex a defar réew mi du neex a defar lépp nag ndax xaalisu Amadou Ba geex na tàkk ñi da ngay génnati eh, wax rek réew mi moo tax man du ma ci saan kenn lu ma ciy daj yéen la du ma ci seetaan kenn du ma ci uppi internet naa damay seetaan kenn ci ñoom mukk billaay wallaay wa taala lu ma ci xam ku néew moo yi ngeen di dagg nii yu ndaw ndawaan yi voilà ñu dagg yi ndaw ndawaan am na ñu ci bari sax dama leen mujjee am na ñu ci bari dama leen mujjee def noo xam ne bés mooy benn kii boo xam doo ko bësee dañ naan la fii ak une semaine dootoo gisati ay ay ay publication wala fii ak un mois ñu bëri loolu laa leen def ñu bëri parce que damay nëbbatu nëbbatu ba sonn mais duñ la ci bàyyi c'est incroyable yalla bu ñew nak jël jël ay ki jamburi di la ko tegal pour ngay ngay seetaan duma ma seetaan duma du euh seetaan ma dambal duma ma duma du ma sex duma sexe ma dambal duma bugal duma len amul ben njëriñ ci man ben njëriñ amuñu ko légui nak amna ño xamni ñom parna ko demb seetaan rek la def bay la voilà mais liñ len wax mom lérna waxul ci Eh, dëcc waxul ci liste du wax ci liste yi du wax ci liste yi du wax diggante moom ak Sonko xam na lu mu def waaw nit dañuy ñëw di imaginer nit wala di waxal ay nit yi bu eh, Déthié jigéen la doon waxal jigéen jooju la ko waxal banaan ko ñun duñu ñun sëriñ Sonko gënu gënuñu ndey Sonko gënuñu ndey di wax gel boobu moo jël loolu moo ko joxe ñu jël ko jox ko Sonko Sonko ne moytul mo nañ moytu bukki yi sàngoo deru bëy Sonko bu mu génnee bu mu génnee gisu leen ko waa ji Sonko ba suñ jonn yàllay tey gisu leen kooku waa ji tabaski am na fi gisu leen kooku waa ji lu mu tudd am na fi gisu leen kooku waa ji nag ak gis ngeen Sonko muy rek dem ak set génne gisu leen kooku waa dara am na fi <laughs> loolu kay nag nañ bàyyi dof dof ligi fi dara am na fi diggante bi kay do rataxatul diggante bi rataxatul c'est tout yéen euh, xam ngeen loolu léegi nag waa ji dafa gën a def lu garaaw moom mooy amul conseil au lieu mu dem malgré tout coow li mu ñëw ànd ak Sonko ne dama lay soutenir malgré tout waxuñu wala waxatuñu mais on s'en fout man damaa xeex pour projet bi projet bi moomoo ko man tey imagine toi Sonko naan daf may jéem a génn ci projet bi <laughs> Sonko mën na ma génn ci projet bi sama projet boo xam ni depuis ma juddoo ba léegi moom laa xeex moom laa rab mu nekk ci moom may def ay saan mu nekk ji Sonko daf ma a génne ci xeex bi bu mu ne woon génne ci xeex bi ma ne ma naan ko mënaloo ma dara xeex bi laay xeex ba dee parce que xeex bi dañ ko wokk ma ak du ma la bàyyee xeex bi kon kay bu fekkee <laughs> dëcc moom daa xeex ba xeex bi toll fii mu gëm ko nu mu metti metti danaan ko man duma génn ci xeex bi maa la porté ba fii te ma lay accompagner munoo projet bi moomoo ko mais mu dem fay di contre projet ànd ay noonu projet bi après bëgg a ñëw naan day yor fulaaram comme yoo leen di rek di jooy ñoo gaaw ci jooy ñoom koo jooy comme ay salaan ku laal koo laal mu jooy <laughs> kon kay sa ngeen xam ne fii am na dara lu fi am léegi nag ñu fi nekk nag di tardé seen bopp naan non kii bi am na kii bi amul sa waay am na lu xew ba Sonko écarté wu ci dëcce loolu xam ngeen loolu te xam ngeen ni diggante bi neexatul te am na ñu doon àndal dem ba léegi ñuy ànd dëcce nag moo war a am ay conseillers. man de bu ko don conseil ma ko my boy ma ma ko xam nga def dama nga japp ci projet bi nga ne projet bi sa projet la du projet Sonko du projet Diomaye et tu soutiens ce projet là projet bi mo wara dem assemblée pour ñu tek ko fa pour voter loi yi pour réformer euh, dëkk bi donc and da ngay dem and ci lolu japp comme ñuko ñom mam boy defé comme ñuko ñom Boubacar Camara defé comme ñeneen ak ñeneen ni nit ben député am dëcc xam na ni benn dëcc mënu benn benn benn benn bu gën a ndaw dammitub dé député dëcc mënu ko am dammitub dé député dëcc mënu ko am yéen xam ngeen